Dimbel comme tu me peux toujours il reste le temps moom baat bi neexul loolu waaw lii lan la yéen a ngeen xuloo wala juboo ngeen xuloo leen kan mooy seetaane bi nee na maa seetaane bi yaa diis yaa diis yaa diis. <laughs> Ah, waa mais. ah estili nga de bari. da nga salis ah lii lan la lii lamit lii lii lii. baat kiw Nabil Keita lii bu doon 42 du dem de. ki dingeer lay sangoo. Maggi. Maggi. waaw lii lan la. yéen a ngeen xuloo wala jubóo ngeen. xuloo leen. kan mooy seytaane bi. nee <laughs> na maa seytaane bi. ah soo saa moom baat bi neexul loolu Aywa yaa dis yaa dis yaa dis <laughs> ah, <laughs> waame ah estili nga de bari da nga salis ah lii lan la lii lamit lii lii lii baat ki Nabil Keita lii bu doon 42 du dem de ki dingeer lay sangoo